politique bi. oui ndax euh, tey jile le président assemblée nationale waroon recevoir euh, la nga xamante ni mooy correction ñeel euh, règlement intérieur bu assemblée nationale. Mm-hmm. ndax fan yii yëpp am na ay ñenn ci ay députés yu lelu woon fële ca Saly ngir liggéey ca règlement intérieur boobu. ndax loolu tànk amul woon lu la leen premier ministre waxoon tant loolu yembul woon moom du mën a def déclaration de politique générale. ci assemblée nationale. oui yi. ak euh, déclaration de politique générale bi ñuy xaarante ndax jàpp nga ni joyante yooyu dina war a mën a tax ba président assemblée nationale dem euh, astafurlah première ministre dem assemblée nationale ngir def déclaration de politique générale am euh, te ñu xam ne ci ay fan yu néew rek président de la république dina am possibilité dissoudre assemblée nationale boobu lan nga ciy gën a xaarandi ñu dissoudre mm, assemblée bi. wala ñu jooyanti mbiri président euh, premier ministre dem def fi déclaration de politique générale am ci assemblée nationale bi. alors l'un n'empêche pas l'autre ah ou bêta moom cette assemblée là qui s'est montrée vraiment euh, si forte en niaiserie non ñoom nañ dem ci jàmm ak salaam par contre. L'avantage de pouvoir faire la déclaration de politique générale devant eux, mmh. devant cette assemblée-là. Ah. qui devait être si auguste mais hélas par son attitude ne sera jamais auguste eh ouais. c'est juste une assemblée comme ça mal élu déjà bañ leen defal ay dañoo provoqué créer xeex créer tension teg ay gendarme voté ñi opposition ñi bëggoon voté ñu bloqué leen ñoom ñu voté ne yaay eh, ñoo gagné alors il faut daal defal seen président assemblée mm. il faut comprendre une chose kilifa bi bu ñu bëggee dégg-dëgg mm. le fait de faire une déclaration de politique générale devant eux mm. ci sama gis-gis bu gàtt xam nga la mu doon jàkkaarloo look ñoom ne leen yéen de yéen a fi def lii yéen fi def lii ak lii ak lii ak lii yéen a defee nii mu mel nii ngeen dundeek ñun nii du dëgg mm-hmm. parce que léeg-léeg yooyu dafa neex li def a ngi nii taxaw ci déclaration politique générale ne leen devant leur a lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii ba mu leer ñëpp bu boobaa di solution bi fa laa gën a neexee dana dana bu doon bu doon ay jëni ñoo lekk dañ naan ay cuq na <laughs> waaye nan neex parce que sëñ bi man képp koo xam ne danga maa sonal yéene woo ma jàmm say mbir du ma saf lii la. parce que PM daf doo waxoon ne moom correction boobu rek lay xaar ndax déclaration de politique générale bi moom yem na mais règlement intérieur bi nga xamante ni defaruñ ko loolu rek la doon xaar. Euh, pour mu mën ko pour mu mën ko euh, joyanti pour mu mën a def présentation de déclaration de politique générale boobu ndax jàpp nga ni correction yi bu amee dina dem disi ñu koy dissoudre wala lu ma gëm la dès lors que le premier ministre avait euh, annoncé cela que voilà c'est ce qu'il attendait et que moom pare na depuis je me dis bu bu loolu amee d'autant que le président de la République dalal na sunu beneen kilifa bi Amadou Mame Diop pour loolu. pour ñu arrondir les angles. ba je me bu fekkee loolu yemb na certainement fii ak fan ñu ne déclaration de politique générale am na bu amee ba pare nag bu ñu ci pare jàll ci leneen ci leneen lu ñoo war a jàll nag le 31 juillet dana jot ci diggante bi incha allah deux ans yi mat. mais jàpp nga ni Ousmane dina jàkkaarloog euh, député yi nii pour def. am na ñu ne warul jàkkarlook ñoom parce que ñii jaruñu ko am na ñu kaa wax. waaye man dama gëm ne la taxoon ñu ne yeey yaay déclaration bi du am non bu gars yi defaraatee affaire yi ba mu yemb nag nekk na mu war a nekk ba règlement intérieur bi tegu si yoon. Mm. non na PM wax na wax rek. moom après dissolution ak ci non amul ay xaar ba fal beneen assemblée door a wax ak ñooñu loolu mën na nekk soit itam. Mm. mais li gën li ma jàpp man sama gis bu gàtt moo di ne naka def nii wax li fi nekk wax réalité bi wax fi ñu jëm bu boobaa bu beneen assemblée amee itam lu tere mu kon ne di wax ak ñoom. mais ragaloo ci motion de censure bu fekkee ni dem na. assemblée nationale motion de censure. nañ ko jéem. ah ñoom ñoom majoritaire foofu. waaw nañ jéem maa la wax lii motion de censure du am de. mais ñoom ñoo majoritaire waaye lu ñu majoritaire majoritaire am na député yoo yow xanaa xamoo politiciens yi yow am na député yoo xam buñ ci eggee dañuy dañuy dañuy rasu de nii la ñuy def. soppi west nii la ñuy def. la ilaha illallah ñu ngay waxtaan seen biir. booy suñu waa ji mu ngi nii tey la ñu dem yoonam ñu li ñun duñ fi nekk di mu dem yoonam bañu fi ba pare ñu ñu ñuy dugal ñuy dugal suñu bopp duñ ko def de. man nag buggoon naa vraiment PM def déclaration de politique générale ci kanamu gars yi. la xam ne discours yeeg nan la gars yi di di di waxee. ci li moom alors tey ci bëccëg gi la ñu ki nga xamante ni moom mooy euh, Amath Suzanne Camara yóbbu ko. Euh, sûreté urbaine ngir déglu ko ci wax ju ji nga xamante ni waxoon na ko ci benn émission Ah, si suñ ñenn si ay naataango euh, fële ca Seneweb. ci mhm. émission bu tudd ultimatum euh, tax loolu ñu jàpp ko. di ko déglu saa su cité nag beaucoup de réaction ku ci mel ni Cheikh Bara Ndiaye dinañ ñëw ci li nga xamante ni moom noonu la ko gisee. Mhm. Euh, jàpp na mbir yooyu noonu c'est antidémocratique mën nañu bàyyi dans un pays démocratique. ñi nga xamante ni dañu am seen xalaat yu wuuteek majorité bi ñoom it ñu wax seen xalaat ndonte ñaawlu na bu baax a baax façon ba nga xamante ni noonu la ko waxee eh, lan mooy sa jàngat ci arrestation am ak sortie bi nga xamante ni def na ko. alors je te surprendre man mbirab APR lu takk ci APR. Hmm. xool lu takk si ñoom dara ci. déet je comprends le, le discours de Cheikh Bara dans le sens où par rapport à la démocratie avant ma déglu <laughs> parce que man je suis ay xam nga man du ma suivre waa APR du ma leen déglu sax. Mhm. yàlla dogal na du ma leen déglu y a rien qui m'intéresse dans ce qu'ils font au vu du mal qu'ils nous ont fait c'est un mal boo xam ni humainement man mën na ma leen ko jéggal nii quoi mais au plus profond de moi je me dis mais au nom de quoi ces gens nous ont-ils manqué de façon si immonde autant de respect ils ne nous ont pas été c'est-à-dire ils ne nous ont pas respecté waaw léegi ñamel noonu bu ñuy wax man du ma leen déglu mm-hmm. léegi nag bu ñu waxee ba mbir xew ci ñu dama naan waa lu xew xam nga yow yaa ma tegal fii kàddu gi waaw mën nga teg kàddu gi ñu déglu ko ah waaye teg ko waaye nu déglu <laughs> waaye teg ko waaye waaye teg ko nu déglu am na internet yu ko déggul noo tegal tegal kàddu gi xaw naa jagas de noo tegal nu déglu ju ju ju xaaral tegal noo tegal bokk internet yi Bassirou du wax dëgg fen ak manipuler rek lañ def ba egsi au pouvoir te loolu la continuer pour conserver le pouvoir mais euh, euh, lu mu ngi nii nag caisse de l'état dara newu ci Diomaye day fen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 il a été injurieux. Mm-hmm. Hélas, le président Macky Sall n'a pas eu à enlever l'article 80. du mm-hmm. ça existe toujours. waaw. offense au chef de l'État. Mm-hmm. du loolu. waaw waaw léegi je comprends Cheikh dans un sens mais comparativement je me dis qu'en écoutant ça ça n'a rien à voir qui a eu kan kan moo ñemee woon wax Sall li Macky Sall li mu wax du dëgg Macky day fen da fen Macky day mais nu mu Ablaye Wade ko fi wax sunu maam ba ba ñuy wax waxi fond xaalis milliards yi. Hmm. mu leen waxul dëgg. ak lam ca teg ak na mu ko waxee day fen maam Wade du ma wax lool hmm. mais fii en l'espèce après nag quelqu'un me dit ou me dira ou peut nous dire attention qu'est-ce qu'avait écrit le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur sa page Facebook il avait parlé de clochardisation de la justice. Mhm. ak leneen ak leneen mais boo ko nattee sax du benn du benn. Bassirou Diomaye Diakhar Faye fay fait fait avait fait un constat man ma def constat ne justice bi li ñoo doxal du dëgg du yoon parce que li ñoo jiiñ jiiñaate bu fekkee amul waru ñoo doxalee nii loolu constat la nga ne la justice est en train de se clochardiser ou d'être clochardisée constat la wax ju ju diis la. non ju la la justice est en train d'être clochardisée par qui celui qui veut accuser l'autre parce qu'il ne veut pas le voir dans la concurrence politique. mais mais des magistrats yu jàng am liberté mu am séparation de pouvoir. nga quand un magistrat dit. la quand un presse sénégalaise est corrompue. c'est quoi. accusation grave là. non la presse sénégalaise est corrompue. une partie de la presse sénégalaise est corrompue. quand un magistrat presse. le dit c'est quoi. il y a rien de grave. c'est un constat. quand un journaliste dit qu'une partie de la justice est manipulée. est corrompue est clochardisée. où est le mal. quand Bassirou Diomaye Diakhar Faye l'écrit on va l'emprisonner on l'alpague. tëj que 11 mois. kii il vient t'as vu son comportement. à un moment donné qu'est-ce qu'il avait dit non Ousmane Sonko dañ ko war a faat maarali um si tey qu'est-ce qu'il dit tu sens même de la haine malheureusement on me dira oui jarul woon ñu kaa bon mais si on mais, mais jàppoon ne lii quand dina may opposition bi nga xamante ni depuis temps yëpp ñu ngi naan rupture amul parce que gis nañ yenn nomination yi léegi est-ce que là c'est pas une occasion pour ñoom ñu jëfandu si ne véritablement la fi woon war nagul alors il y a une chose y a une chose y a une chose il faut pas qu'on confonde aussi mm. il n'est pas dit que li fi parce que du benn du du benn quelque part ça peut gêner attention gars yi ñu ngi di jàppaate gauche droite ku ñu jàpp non y a pas photo ça n'a rien à non ñoom kay commencé nañu bind ne mooy deuxième euh, prisonnier euh, politique ci. waaw mais xam nga ama ama ama a y a une réalité à comprendre sëñ bi kilifa bi il y a qui a la légitimité populaire c'est le pouvoir en place actuel mmh. Macky Sall autant pas la légitimité populaire il avait la légalité d'État maanaam moo falu ne yaay falu na am problème moo yor décret yi moo signé La population n'était plus avec lui. Et pourtant, il faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, peuple bi ñu ci bëri boo laajoon ñu ne la mais kii ka xamadi la kii ka yabaate la warul waxee nii ak président pourtant c'est le même peuple kii soutenait Assane Diouf bi moo yekk lu mel ni xamee Macky Sall parce que Macky Sall moo ñu tooñoon Bassirou Diomaye Diakhar Faye tooñu ñu nag fii lay différence bi lii rek moo di différence bi amaat na toog ba Bassirou tooñ et puis en disant waxul dëgg ki qu'il continue et nous dise kees yi lan moo ci nekk moom am amaat bu ko xamee ñu waxante dëgg nag après nag am na leen luñ cee wax nag maa ngi ciy dégg yeneen ak yeneen bu dee loolu am na nag moom loolu beneen paire de manches la nit ku wérul moom dañ kaa war a faj faj <laughs> yal yàlla wéral ñëpp amiin yaa rabbi yal na yàlla wéral ñëpp <laughs> alors Cheikh bi loolu euh, moom mooy li nga xamante ni mais am na ñenn ñu nga xamante ni bi ci déggee wax ji dañ ne dañuy bu ñu fu ñu gis Amath nañ ko def noonu est-ce que ñooñu aussi juumuñu parce que bu ñu nekkee dans un état de